suñu gan tey jii ci altine bi Mouhamadou nduur la moom mooy directeur euh, des mines euh, monsieur Ndour ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. Euh, soxna si maa ngi lay fay di nuyu sa naataango ci plateau bi yëpp di nuyu Chérif Dia. Hmm. merci beaucoup alors bokk na ci ponk yi ñuy waxtaanee euh, Chérif li xewoon euh, semaine bi weesu gis nañ ko fële ca Tomboronkoto nekk ca région bu euh, Kédougou Chérif. donc askanu nag dafa jóg monsieur le directeur doon ñaawlu en tout cas société minière yi nan fa nekkee di exploiter dëkk ba bëgg sax ñu tiit ci nangu seeni suuf ba jàppante amoon na ci ba ay néeg ñu taal leen fa ay arrestation ba finalement sur ordre procureur am na ñu ñun ci daal di liberté ñun ci daal di libéré joxoon nañ ci baaraamu bi MDC moo taxoon en tant que directeur des mines au niveau du ministère euh, des mines et de la géologie quand ñu bëgg am la la la version bi nga xamante ni moom mooy seen bos jëm ci lu tax waa PMC moom ci wàllu sondage yi bëgg a xaabaabal bay nangu këri jàmbur. Mm-hmm. waaw euh, jërëjëf euh, Chérif donc euh, ñu leen di nuyuwaat ak ñi ci plateau bi di leen remercier également ci opportunité bi nga ñu jox pour ñu mën a indi ay éclaircissement ci situation boobu. bu déplorable déjà di di masaw askanu tomboon koto bi yëpp vraiment di regretter situation bu fa xew euh, pour leeral nag euh, société bu ñu naan euh, ardi Ardimine mm-hmm. SARL moom la état du Sénégal attribué un permis de recherche en 2019 pour or donc périmètre bi ñu ngi koy woowe Tomboronkoto donc mu ne ci village Tomboronkoto ba ñu commencé seet bi en deux mille dix neuf ñu jot a def ay travaux. Euh, travaux yi euh, résultats yi concluant après ñu dem signer benn protocole d' accord ak société bu ñu naan Bambouk Minéral donc mu nekk seen partenaire technique pour mun a continuer recherche bi. donc Bambouk pour rappel moom mooy euh, filiale groupe résolute mi nga xam te ne moom moo chargé wu recherche bi. PMC nag bi ñuy tudd ci mbir mi. moom mooy filiale bi nga xam te moom moo chargé exploité mine bi bi nekk ma ko te nga xam te ne état du Sénégal est actionnaire à de 10 pour cent bi ñuy tàmbalee recherche nag donc 2019 ba 2020 Bambouk ñëw tamit gën a def ay yeneen recherche de surface ñu am ay indices yu intéressant maanaam ci suuf si bu ñu defee 2000 plus de 2400 échantillons analyser ko résultat yi baax mhm. ñu war a dem nag confirmer résultats yi en profondeur parce que dafa am recherche de surface am recherche en profondeur euh, recherche de surface yi moom wane résultat yu yu yu yamamaay ñu war ko na confirmer par des sondages en profondeur hmm. ñu def nag seen programme depuis 2020 seen programme ne léegi dañuy foore vingt 27 trous hmm. au niveau du village ak au niveau euh, de l'environnement immédiat du village te sax résultat yi gën a baax sax ci village bi la ñu nekk léegi bañ commencé bëgg def nag benn benn pàcc population bi bañ nag société bi daf euh, continuer affaire recherche bi yooyu noonu donc depuis deux mille vingt nag ba deux mille vingt bii nii ñoo ngi nekkoon ci ay waxtaan donc autorité société bi. dem nañ gis nañ euh, population bi waxtaan ak ñoom xamal leen ne actuellement ci phase de recherche la ñu nekk c'est vrai Euh, ñoom ñoo ngi tiit naan bu résultat yi baaxee. à juste raison ah tiitaange. à juste raison effectivement parce que dafa amoon Sabodala ñu gis ba nangu fay village. waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ci loolu donc euh, li may préciser encore mooy parti une partie c'est une partie de la population Tomboronkoto notamment les orpailleurs notamment les orpailleurs yi nekk foofu noonu ñoom ñoo doon kaas pour bañ travaux yi continuer te orpailleurs yi xam nañ ni fi Sénégal boo jëlee dix orpailleurs six yi duñ ay sénégalais soit Mali lañ jóge soit Burkina lañ jóge soit Guinée lañ jóge baggana sax donc loolu mooy li am. léegi nag bañ waxtaanee ñu dem seeti askanu Tombon Xoto waxtaan pour xamal leen ne yéen ñaa ngi yéen a ngi wax ay waxi jóg mais excès guñ sax foofu parce que yow boo confirmé wul ndax gisement am no ko sax xalaat ay waxi jóg. Ah, mais da nga ne balaa monsieur le directeur. maa ngi ñëw vous avez dit da nga ne. maa ngi ñëw bi la nekk. waaw maa ngi ñëw mais xam nga loolu non non loolu. recherche de surface yi moo ko wane. mais dara lee mais dara waxul ne c' est enraciné en profondeur parce que mun nga am or ci kaw mun nga am or ci kaw ci kaw suuf si te nekkate maanaam fa gisement bi jógee maanaam fa mu soqeekoo ci suuf à deux cent ou trois cent mètres de profondeur dara amu fa. donc loolu bu nekkoon résultat dafa confirmé dañ dem mu infirmé ne maanaam su foofu noonu kon dañuy arrêté dem mais instant mu mënuñu ci xam dara tant que dafa ñu forage yooyu noonu ñu xam ndax gisement am na fa wala amu fa. mais xam nga liy conséquence forage sur l' environnement sur beaucoup de choses yoo xamante ni après wàqi ba pare dem ba ko fa gis nañ ko Kédougou. déedéet loolu amul wàqi ba pare dem ba ko fa amul. non non c'est-à-dire que. ñu ngi dem dem fa plusieurs fois gis nañ nag compagnie minière yi wàqi. loolu déedéet ko ko sëkkaat déedéet. loolu du compagnie minière yi. ñan la compagnie minière yi. yi di exploité. à Kédougou foog mu leer ñaar la. Sabodala mooy exploité. ak PMC ko yi ngeen di gis nag yooyu yëpp orpailleurs maanaam suuf si ñuy tibbi noonu ak tur yu bëri yooyu noonu yëpp ça c'est le fait de yu mag yi loolu du orpailleur yi de léegi nga ne ma ne ndalaan yi fi gis ak euh, oto yi nga ñooy wàq suuf si loolu du orpailleur mais foofu noonu foofu Sabodala laa la war a nekk wala Makole war a nekk justement donc ñaar yooyu kese la amul beneen mine d'or au Sénégal yaa que deux mines au Sénégal donc li cool li cool yi bëri bëri bëri yëpp yaa que deux mines d'or au Sénégal c'est Sabodala et PMC Mako donc SGO et mm-hmm. donc encore une fois le Sénégal c'est un petit pays minier comme ni ko peut-être foog loolu ñu koy leeral donc ma revenir si sa question ma terminer donc depuis deux mille vingt ba deux mille vingt trois ngi ci ay waxtaan xamal askan bi ne leen liñ gis ci kaw lañ bëgg a confirmer wala infirmer donc te loolu vingt sept points de forage kese la woon te ci biir waxtaan bi sax dem nañ ba ñu dindi dix points. yi nekkoon sax ci biir village bi société bi na léegi bàyyi na yooyu léegi nañ dem aux alentours du village 17 points ñu xool foofu noonu pour infirmer ou pour les résultats. Hmm. Euh, ci loolu. Hmm. ci loolu la ñu nekk léegi nag autorité euh, administrative yi que muy hmm. préfet que muy euh, gouverneur waxtaan nañ ci ak askan bi man mii bi ma jëlee service. dem naa fi waxtaan ak askan bi xamal leen ne ñii kat phase de recherche lañ nekk te la recherche elle est différente de l'exploitation donc pour rappel encore une partie de la population ñoom ñoom ñoo nanguwul te notamment ce sont des orpailleurs te tey jii sax alhamdulilah tey jii muy tey jii muy xëyoon ni tey jii nii am na réunion askan bi seen bopp ñoom ñoo woote tax tey xam nga sa benn société bi moo doon dem envers les populations. autorité administrative yi ak autorité affaire gouvernement ñoo doon dem di waxtaan ak ñoom mais tey jii ñoom ñoo woote nee na ask nee na société bi ñëw ñuy waxtaan xool nu ñuy continuer mais bu ñëwee euh, bu ñëwee indi ay takk der tasaare leen jàpp leen ak yooyu yëpp rek xëy na day indi tiitaange Chérif mi ngi ko doon wax sànq Olof Ndiaye danaan bu ndëbin rayee sa maam boo gisee lu ñuul da daw mm-hmm. lu mel ni Sabadola Gold Operation bi nga wax en mm-hmm. ñoom euh, daanaka booy xool ñu ngi amoon seen chiffre d'affaires 174 milliards de francs CFA 2015 mm-hmm. xam ne mooy euh, la ñuy delloowaat ci askan bi muy seen RSE daanaka 600 millions de francs lañ ko plafonné 0 virgule 39 34 pour cent ci seen chiffre d'affaires mu nekk lu néew néew or boobu ñu fay jëlee ban njeexital lay am ci askan wi xañ na looloo tax bu ñu gisee lu ni mel ñuy tiit parce que xam nañ ni buñ ci jëlee fukk daanaka xaajaatu xaaju benn bi sax ñoom duñ ko gisaat ci ñoom seen biir ndax est-ce que ça a changé entre temps et ça nous étonnerait quand waaw la réaction des populations foofu tamit sax daf may may. Mhm. ma ñu rassurer peut-être les populations de Tombourne Khoto. donc en revenant sur le déménagement sur la délocalisation du village Sabodala ko waxee sànq Chérif ba ñuy def recherche en un moment donné gis nañ sa village ba am na un gisement tey jii nii de la village boobu déplacé nañ leen vers un autre site mais tey ku demoon foofu noonu te fa ñu leen yóbbu gis ne kat fa ñu jógee ak fa ñu leen yóbbu am na amélioration bu baax a baax a baax a baax ci ay cases lañ jógee te dem bi d'abord c'est à travers un comité comité boo xamante ne représentant bépp couche bu nekk ci gox ba. tant que fa nekk que muy jeunes yi que muy femmes yi que muy société civile muy bàjjenu gox présidé par les autorités gouvernementales muy le gouverneur le préfet les sous-préfets waa administration centrale ñoo fa woon ak sunu service régional moo ngi fa woon kuréel boobu yëpp ñooy toog di waxtaan ci ay semaine ci ay weer ci ay at ñoom waa dëkk bi ñooy wax ne fii la ñu bëgg a dem gannaaw ba ñu d' ñoom mun nañoo jóg di waxtaan ñoom ñëpp ñu d' accord à unanimité dëkk bi d'accord na dañuy jóg parce que intérêt Sénégal la bu ñu d'accord dañuy jóg ñoom ñoo wax fan lañ leen di yóbbu ñoo tànn fan leen di yóbbu ñoom ñoo tànn ban de maison lañ bëgg compagnie bi tabaxaatal leen ko nekk ay maison en dure ñoom ñoo soxla sa matério bi bu ñu fay yóbbu ñu tabaxale leen fu joxaat ñëpp ku nekk sa kër sa concession yu ngande tabaxal leen ay poste de santé indil leen tabaxal leen ay forage doo indi leen ndox boo xam te ne amuñu ko woon indi leen électricité ligne moins tension indil leen ko tabax fa mairie mairie bi ñu tabaxaatal leen beneen local bu bees maanaam améliorer seen ay conditions de vie lépp jëm ci wàllum espace pour bu ñu doon bu nekkoon ñu doon bëy espace pour tool ñu aménager leen ko améliorer seen ay conditions de vie loolu noonu tey jii nii boo demoon Sabodala ku xamoon Sabodala ba woon ak Sabodala bii nii di xam ne changement bu baax am na fa. beneen bi tamit am na beneen am na beneen village tamit bu ñuy waaj mais li ñuy joxe dafa néew par rapport ak li ñuy am. mooy li ma la jox sànq comme exemple même bu fekkente ne def na loolu def nañ yooyu yëpp. am na ñu bëri des ndax boo changé leen nit ki itam fi mu dëkk joxoo ko liggéey. xam nga joxoo ko lu muy lekk chaque jour tamit. moom laa la wax c'est très ne duñ déplacement bi du ñu yem rek ci dem tabaxal leen ay kër tabaxal leen ay poste de santé tabaxal leen ay. Euh, forage doo indi leen courant du yem ci loolu kese mais li ñu naan li ñu woowee les moyens de subsistance sax dañ koy préparer dañ naan la yow mii amoon nga benn activité boo waroon def tey jii nii nañ la peut-être jaaxal nañ sa activité boobu noonu mais dina la jox benn moyen boo xamante ne wala benn aménager la benn terrain boo xamante ne di nga mën a léew subvenir à tes besoins. donc te loolu c'est normé. ñoom li ñuy kaas lu bari na de que genre euh, da ngeen mel ni ñu leen xaw a soofantal c'est-à-dire. boolewul leen leen ci lu bëri à travers reportage ñuy def. bokk na mm-hmm. euh, ci li ñuy ñaxt lu bëri. Mm-hmm. waaw xam nga non loolu defe naa ne amul peut-être euh, mooy li ma wax sànq rek foog tam ñu distinguer orpailleurs yi ak population bi nekk Kédougou sànq maa ngi laan la population bi di yëngu ci orpaillage au niveau de Kédougou boo jëloon dix maanaam soixante cinq pour cent yi ay étranger lañu. sénégalais yi siy yëngu maanaam sax bëriwul bëriwul parce que euh, ku xam Kédougou tamit activité première Kédougou du orpaillage ba njëkk peut-être jamono yi lañ ko bàyyi mais activité yi doon am foofu noonu nga xam ne askan bi noonu doon dundee agriculture la élevage la pêche la wala cueillette la donc orpaillage bi activité saisonnière la woon nawet ba nawet lañ ko am def. dam jël suuf si ñoo ci boobu dex bi lay am. donc ana yi ak ñoom euh, dañu nekk ci espace CEDEAO espace UEMOA ah, donc c'est la libre circulation des personnes donc des biens et des personnes mm-hmm. ñi jógee ñi jógee Burkina ñëw ñi commencé di di développé nag ak ñoom ak technique parce que sànq maa ngi la le Sénégal c'est un petit pays minier comparé même dans le mm-hmm. comparé au pays de la sous-région lu mel ay Burkina lu mel ni ay Mali ñooñu dañoo am technicité bi donc ñooñu ñoo ñëw di commencé di exploiter suñu or bi Sénégal mu nag sénégalais yi nag commencé nag bàyyee nag seen li ñu doon def activité euh, primaire mooy agriculture élevage di commencé ñëw nag ci orpaillage mais ça n'explique pas le fait que Kédougou bokk ci région yi gën a pauvre ci Sénégal derrière Sédhiou sax certainement waaw xam nga euh, tamit loolu tamit euh, defe naa ni ku xamoon ku musoon dem Tombonou Koto bi ñuy wax tey jii nii Tombonou Koto ku fa musoon dem avant PMC di ñëw di nga xam ne changement bu mag am na fa ci Tombonou Koto Tombonou Koto ni meloon avant PMC di ñëw am bu mag te maa ngi nii jàkkaarloo ak réalisation yi nga xamante ne moom la PMC def foofu depuis 2018 tey jii nit li mu fa li mu fa dugal rek nga xamante ne bokkul sax ci li xamante ne mécanisme yi nga xamante ne moom la état prévoir pour joxaat ko waa Sabodala loolu xamante ne ñoom convention bi société bi am ñoo ak commune bi ak département bi rek toll na ci 2 cent quinze millions yoo xamante ne dugal nañ ko fa en terme de projet structurant au niveau de la commune et du département de Kédougou tamit yaa ngi faral compagnie yi de. non non faral non non xam nga ni mi ngi fi. waaw ah, fi mm-hmm. nekk fii ci Sénégal mooy les communautés. rawatina mm-hmm. population locale. ci parce que bu naan RSE du lu leen di sarax. maanaam li nga wax ñu. c'est ça dañ daf leen a war dañ ko war a def. non lii non attends xam nga ñun état bi. askan bi lañ fi nekkal. bañ nañ ko ba euh, l'article vingt l'alinéa premier lu mu wax. ne les ressources naturelles appartiennent au peuple léegi dès nag ñu ne léegi recettes yi recettes minières yi askanu Sénégal yëpp ko ko bokk waaye dañuy jël benn pàcc ñu ñëw di ñu def naan euh, ségrégation positive à l'endroit de ces communautés là fa nga xamante ne foofu la or bi du jógee donc ñu teg ñaari état Sénégal teg ñaari mécanisme benn mécanisme mooy li ñu woowee le fonds depuis développement locale muy FADL mu nekk waaw ma ñëw maa ngi ñëw mu nekk 0,5 pour cent du chiffre d'affaires hors taxe annuelle de la société oh. compagnie bi ñuy waxal muy PMC maanaam ci nekk ma ko maanaam ba ñu xayma li ñu ko war a la ñu war a versel commune bi toll na ci 800 millions bu ñu jëlee kaawu Sabodala ñu xayma li dañ ko war a versel ci 0,5 pour cent yooyu noonu toll na ci 2,9 milliards donc loolu noonu bés bu ñu commencé mettre en œuvre te ci ci ci ci ci président joxe na ay instructions fermes ci ci conseil des ministres yi passé pour ñu mettre en œuvre ce fonds là fonds yi bu ñu ko mettre en œuvre communes yooyu noonu bu ñu ko utiliser dans li ñuy wax inve que est destiné à l' investissement le FADL c' est destiné à l' investissement donc bu ñu ko utiliser à bon escient gëm naa dina changer xar commune bi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. monsieur Ndour. Uh-huh. beneen bi oh, monsieur Ndour y' beneen mécanisme bi boobu uh-huh. ma daaneel. waaw beneen mécanisme bi mooy le fonds d' appui et de péréquation aux collectivités boobu noonu nag mooy vingt pour cent wu recettes yi recettes minières yi mooy redevance minière mooy euh, taxe superficielle mooy droit d'entreprise loolu la ñuy dajale jël 20 pour cent yi seddale ko askanu Sénégal bi yëpp mais dañuy jël nag benn pàcc jagleel ko commune ak département yi nga xamante ne fa la fa la activité minière yi am donc daf doon Sénégal loolu tamit am na benn partie boo xamante ne distribué na versé nañ ko aux communes mu am benn partie effectivement bu des boo xam te ne président jox na instruction ministre des finances pour à ce que ñu mettre ko en œuvre. il n'y a pas que euh, l'or am na aussi phosphate beeg zircon bi en problème bi daanaka ñu ñoom ñëpp la gis nañu GCO lompul rek dernièrement dégg nañ ña fa nekk ñoom tamit di ñaxtu. ak ñi nekk fële tamit ci jogo dañuy dégg tout le temps ay risques environnementaux yi surtout moom la ñuy évoqué. Mm-hmm. apparemment ñoom ñëpp la lan moo tax ñuy seetaan xaj na loolu lay nduru parce mm-hmm. euh, mm-hmm. a am tamit gis ce n'est pas seulement l'or maanaam ci suñu ressource minière yëpp la. foofu tamit jan la leeral te sax jogo bi nga tudd sax. Hmm. c'est un exemple boo xam te sax bu ñu war a siwal la bu ñu war a en fait euh, exemple ñu war a démultiplier parce que quand tu parles d'environnement jogo itam effectivement c'est le même cas. Hmm. jogo tamit y a une partie de la population qui a été déplacée ñoom tamit. sur les mêmes conditions que yi ñu déplacé les villages de Sabodola et de Sabodola noonu la ñu déplacé également euh, waa Diogo fa leen yóbbu tamit les conditions ont été améliorées. Mmh. revenant sur l' la réhabilitation. am na famille yu ñu fi jàllale woon de reportage Cheikh Anta Diop yi demoon ñoo xam ne nee nañ fi ñu leen yóbbu ñoom baaxul. Euh, un reportage de notre correspondant. en tout cas man ànd naa ak le ministre des mines. Mmh. de la géologie monsieur Omar Sarr ñu dem seeti leen yóbbu waaye askan bi waxuñu loolu. parce que mañ fa fekk on a fait une mission là-bas dem na gis nañ li fa yóbbu c'est vrai que lépp mënul yemb xam nga tamit c'est ça c'est la nature humaine chaque fois da bëgg tu as en fait tu as besoin de plus. Hmm. chaque fois da ngay waa da ngay kaas di di di di ñaxtu pour ñu gën a maanaam améliorer ses conditions. mais man dem naa fa ànd naa fa ak ministre bi te ba fa dëgg yàlla fañ leen yóbbu ah ñoom de waxuñu loolu. léegi ci pour pour ñëw ci environnement bi. gis nga jogo jogo hmm. foofu ñu doon commencé di exploiter zircon bi. parti ba ñu pare tey jii nii boo tey jii nii boo demoon da ko xàmmee askan euh, jànqaat bi kii bi. Euh, verdure bi ñëwaat na. garab yi saxaan nañu ba doo ba bu ñu la ne fii lañ doon génnee zircon bi nga naan déedéet. waaw ah, dinañ yabal paysage bu fa nekkoon voilà foog ngeen yabal. seen euh, caméraman yi. ñu dem fa xool fa gis nga. gis nga paysage bi gis nga paysage bi ni mu neloon sax avant ñu exploité zircon bi actuellement sax. dafa gën a maanaam euh, rafet dafa gën a taaru sax. directeur waaw en tout cas li ñu gis ci terrain boobu même notre correspondant ak Kédougou Diabakhate xam naa bu mu mënoon a ah. tëb moom toog dina toog. ndax nee na Mako. investissement yi fa 2 milliards yi nga fa moom nee na gisu ko. Mm-hmm. Afrique Gold ah. aussi. parce que yaa ngi wax même mm-hmm. chinois yi ñu ngi leen joxe permis yow nag na mm-hmm. ñaari compagnie ñoo fay exploité. loolu chinois yaa ngi ci biir. ña nga leen ña nga foofu ca Sanaya. non cest à a deux. mine à échelle industrielle au Sénégal. loolu foog mu loolu foog mu clair. Afrigold nag. non Afrigold Afrigold li muy euh, li muy exploité maanaam c'est négligeable. da nga koo xeeb. non xeebu ma ko xaar ma jox xeebu ma ko xam-xam dama la c'est négligeable gis nga te beneen mbir mooy rapport ITIE bi moom fi foog ngeen tam xool. rapport ITIE bi 2021. Ah, te sax 2021 kay nee nañu recette production or bi dafa augmenté sax. daf de 24 pour cent. en 2021 may permettre euh, ñu maanaam ñu leeral ci yenn information yu jàll ñu naan Sénégal mu ngi produire 21 tonnes d'or keroog maa ngi koy dégg seen benn plateau. ñu naan 19. rapport xam nga rapport ITIE mooy la 16,2 tonnes. exact loolu mooy loolu loolu mooy la bonne information c'est ça le bon chiffre en 2021. oui. c'est 16 tonnes. léegi est-ce que mën ma ñëw ma ñëw ci 16 tonnes yooyu noonu mu laay ñëw ci 16 tonnes yooyu noonu. 12 mhm. tonnes yi moom mooy ay GO. Sabodala 4 tonnes yi moom mooy euh, PMC. PMC Afigol bi ngay wax eggul sax tonne. Mhm. donc moo tax ma ne c'est négligeable par rapport ak yeneen ñaari mines yi. ñun mhm. donc loolu la. c'est négligeable ñett yooyu lañuy ñuy comptabiliser. ci tonnage bi. Afrigold la. PMC ak Sabodala donc PMC bu amee ay 4 tonnes Sabodala am ay 12 tonnes Afrigolu c'est moins d'une tonne. léegi procédure de levée or bi doo ñu ko expliquer ñu xam parce que ñeneen avion yi moom dañuy ñëw rek wàcc foofu jël affaire yi demaat et cetera. Ah, am na benn sax piste boo xamante ni ku dem Sabodala ñun ñu am nañ chance ñu yóbbu ñu fa noonu la demee da ngay jël jet privé. ñu wàcce la ci benn piste nga dem visiter affaire yi. Ah, xanaa état bi moom du ko contrôler naka lañ mën def ba am affaire bi am xam ma xam man la sànq ITIE ma ñëw ci ITIE balaa ma ñëw si boobu noonu ITIE hmm. benn organe la bu fi nekk boo xamante ne dafay saytu lii état bi di déclaré ne moom la moom la moom la jëlee ci ci ci waaw ba pare ak ak lii xam te ne moom la compagnie yi déclaré donc mu concilier mu xool mu affronter les deux résultats mu confronter plutôt les de résultat yi xam te ne état bi moom la déclaré ak li xam te ne moom la comme bi déclaré depuis 2013 le Sénégal adhéré à cette norme là initiative ITIE la première évaluation qui a été faite wax na ne Sénégal ni muy mettre en à a fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE benn évaluation bi mu ne Sénégal ci benn score cent point Sénégal am na ci 13 am sur 100 ci wàllum transparence ak ci wàllum engagement dans la mise en œuvre de cette norme la donc loolu foofu amul lu ñuy nëbb même li ngay wax nii levée d'or yi mais mu ngi ci rapport ITIE bi procédure bi y une direction du contrôle bu nekk au niveau de euh, du ministère bu xam te ne à chaque fois qu'il y a levé bu am ay agent wu ministère bi yu jóg dem ànd ak waa douane Sénégal ñu dem en présence de la compagnie ñu ñu def le PV de levée hmm. d'or consigné ko dans un PV affaire yi doog dem fa muy dem. Hmm, donc il y a un contrôle qui se fait à chaque levée d'or il y a un contrôle te loolu noonu moo tax moo tax mel na la itiyekat nee na la li compagnie yi joxe ak état de joxe def na ko ci rapport bi hmm. donc fa muy jëm xam nañ ko amul benn euh, opacité amul benn euh, lëndëm lëndëm bu ci am ci production or bi ak fa muy jëm ak li ci Sénégal di am amul benn opacité lépp mu ngi ci ITIE bi te ITIE boobu noonu bu ñuy def divulgation rapport bi dañuy woo ñëpp société civile média yéen da ngeen di teew bien sûr bu pare ñu dem dans les régions minières Kédougou Matam Saint-Louis Thiès Dakar dafa dissémination rapport bi mhm. dem dans les coins les plus ak Tenkoto man mi ànd naa ak ITIE dem ba Tenkoto mhm. ñu ñu ñu ñu ñu faram fàccee fa rapport bi à langue locale ci mhm. olof ci pulaar ci malenke mm-hmm. mm-hmm. donc état moo ngi def ay jéego mm-hmm. fa dëgg yàlla état état depuis 2016 moo ngi def ay jéego bañ na ba code bii nii code cotu 2016 bi dañ ko tëggaat pour am euh, une meilleure Euh, redistribution des revenus. justement fa laa euh, jëm Cheikh Tidiane pour la dernière question. ak li naata waxoon rek xam nga ni su ngeen ñëwee ni population yi jëlee nañ leen fii yóbbu nañ leen bërëb sàngam. investir nañ deux milliards nañ leen ay ay kër yu ah. baax. mais euh, loolu vous ne pensez pas que c'est extrêmement peu par rapport ak li ñu fay jëlee ci alal di ko yóbbu te yéen yéen ngi yéen wax ni ressource naturel yi population yi ñoom ñoo ko moom. Mhm. dëkkuwaay kese dafa dafa dafa ndaw. non parce que Kédougou bi ngay wax ni yàggul dara seen hôpital ba amoon na fa benn drame bu fa am. Mhm. ñu ne ñu hôpital ba amul sax. ambulance bu baax mhm. amul sax yoon bu baax boo xamee ni mën na la yóbbu ci hôpital ba ci bërëb boo xamee ni dafa nekk ci alal kenn xamul mu toll waaw xam nga tamit foog tamit ñu bañ tam réeree benn mbir tamit euh, gis nga état du Sénégal moo ngi def lépp lu mun c'est vrai que dëkk yooyu euh, fa ñuy gese or bi sori na soriwaay boo xamante ne ba pare def enclavé na bi peeru enclavement boo xamante ne donc euh, dina jafe affaire yi xëy rek sotti waaye ay jéego ay jéego Sénégal état du Sénégal moo ngi def fa dëgg yàlla ay jéego ruyee ay jéego yu rëy. pour changer xar xaramu dëkk yooyu noonu. Hmm. Euh, en tout cas ministère des Mines moom. Mhm. am na volonté ferme vraiment depuis 2016 déjà ak le nouveau code minier bi nga ne tëggaat nañ ko pour gën a jox askan bi li nga xamante ne ñoom ñoo ko moom. Euh, en 2017 xam nga ministère des Mines à chaque fois dañ ko doon booleeg beneen département soit énergie soit industrie soit. transformation alimentaire wala kam hmm. mais depuis 2017 président ne na xam na défi yi ak enjeu yi nekk ci secteur bi moo tax mu jël créer un ministère des mines et de la géologie mmh. spécifiquement mmh. tam ba mu ñëwee en 2021 le ministre Omar Sarr daf ci jéego yu rëy ñëw créer waat euh, changé waat organisation ministère bi jël direction de mines bi nga xam te ne moom kese moo amoon mu érigé ko en une direction générale des mines éclaté ko dafa ay direction technique direction des mines bi xam te ne moom laay jiite direction des carrières ak direction de l'EMAP bi xam te ne nag moom dañ ko jël nag créé ko spécifiquement pour orpaillage ba am Kédougou lépp luy exploitation minière artisanale ak à petite échelle ñu créé fa benn direction mm. uniquement mm, mm. pour ñu mun a encadrer secteur bi. parce que euh, Chérif dernière question nous avons quelqu'un en ligne Chérif maanaam pour éviter li xew ko Tomboronkoto maanaam benn cadre de concertation boo xamante ni ngir waxtaan di am. Mm-hmm. entre société minière yi. askan wi ak les autorités administratives locales ba réeroo bañ a am ba quand même lii ñu ngi ciy wax sax am na benn activiste boo xamante vraiment doon na def liggéey bu am solo ba tëj nañ ko kasa alors que da doon dénoncer rek mm-hmm. li nga xamante ne mooy li fay xew mm-hmm. waaw bon cadre boobu nga moom laa la wax cadre boobu moo tax ma ne la depuis 2020 ñun ci loolu la ñu nekk depuis 2020 bu 2023 ci waxtaan boobu la ñu nekk di fexe di waxtaan di sensibiliser di conscientiser bëgg mais tey alhamdulilah tey cadre boobu tey jii nii parce que askan bi seen bopp ñoom ñoo ñëw ne léegi ñun kat nañu nangu nañ ñëw toog waxtaan xool nit ñi parce que tamit bu ñu réeree mbir gis nga euh, PMC actuellement moo ngi exploité euh, recherche ressource bi d'ici deux mille vingt sept la exploitation war a jeex deux mille vingt sept léegi actuellement dañu nekk di recherche ay yeneen gisement pour prolonger la durée de vie de la mine gis nga. bu léegi nag recherche yi ñu nekk def un peu fii tomboon xotu ak yenn bu bu abiturul ce sera la fermeture de la mine et ce sera une perte d'emploi de mille mille emplois vont être perdus si la société ne parvient pas à avoir des gisements a yeneen gisements pour mën a continuer la mm. durée de validité en fait de la merci mine mm. ci mille emplois yooyu mm. noonu pratiquement huit cent yi mm-hmm. quatre-vingt-dix pour cent des emplois c'est des emplois nationaux donc local et merci beaucoup euh, Mouhamadou Ndour merci beaucoup directeur des mines euh, bëggoon nañoo gën a yaatal malheureusement waxtu wi moom moo ñu xaj xoj euh, di la sant di la gërëm bu baax a baax alors